ñu leen di nuyu di jël nuyoo bi di ko teg loxo Serigne Moustapha mii nga xam ne moo teewal mboolem askanu ci le Dramane yëpp ak di ko fi féete mag te ànd ak moom liggéey nee bi nga xam ne taxawu ngeen ko tey ngir yenn ko ak yéen muy kenn loo xam ne jural na ko mbégte boo xam ne wóor na ko ne lépp lu doon seen aajo. dana ci doxe faju kon na xam ne sant na leen gërëm na leen cantam ak ngërëmam amul fenn fu mu ko yemal ba tax na ngeen na leen boole Serigne Touba nga xam ne moo taxam nga xam tamit da ngeen ay taalibe yoo xam ne yéen aju ci ci la ramaan Serigne bi neex mi ngi leen di soññ mi leen di sant ci seen jëfi tey yii ndax kii nga xam ne kat mooy seen jëwriñ ci Serigne Moustapha ñëw na seereen seenum liggéey seere soo xam ne bi sëriñ bi wóor na ko ne sëriñ Touba nangu na seenum liggéey sëriñ bi sant na sëriñ Moustapha gërëm na ko te gërëm it kum gërëm nga am gërëm kon li ngeen xam ne sëriñ Moustapha bii gërëm na leen sëriñ Moustapha si la gërëm na leen te ngërëmaane yooyee nag moo leen di jëloon ngërëmu sëriñ Touba kon li ngeen xam ne foofu ngeen jàpp fu mat a jàpp la foofu ngeen taamu itam sëriñ Touba ci jëmmam moo ko taamaloon boppam yi nga xam ne am nañ ko ak moom nee na nag ñu leen di ñaanal di sàkk yéen itam ngeen ñaanal ko moom daal yi ñuy dolli ko sëriñ bi la ko ci dolli. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mi ngi nuyu mboolem mbokk yi fi teew yëpp waxoon nañ ci biir. sëñ si am maaraa si la sëriñ Moustapha bi nee na mi ngi leen di la mu waxoon ca biir rek moom lay waxaat mooy ni ngeen ne muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw mboolem ñu bokk ci famille bi ngir boole ngeen seen yitte boole seen pas-pas jokk bokk gi dundal taalibe gi nee na loolu mooy bis bii te nee na loolu ràññee na ko ci bu baax a baax ñu ngi ñaan sëñ Tuubaa na mu leen lépp ñu yàgg daje ci bis bii yàgg cee mbég mbég mii yàgg mbég ndax nee na at mu jàll rek yaakaar ne day dara war ko woon mën a romb a romb ci eh, eh, ak ci nganale ak ci nganale te waxtu wu ne mu gën a yéemuwaat ci moom nee na sëriñ Tuubaa ngeen di ko def ko nangu nangu taalibe yëpp nangul boole ñi fi ñëw ñëpp ngir wut si lu baax

ku ci ne xam na ne. ku ci ne xam na ne. pastéef bu wér ba. ba maam yi amoon. yéen a ngi koy dundal bu baax a baax. te Sëriñ Tuubaa li mu yor. mayewut. day jaay. lay jëgg nag. mooy sopp. akub taalibe. loolu nag. yàlla sédd na leen ci. lu tax ngeen war a sant yàlla. kon nag du wax lu dul rek du wax lu dul du wax lu dul nañ bàyyi lépp ak sëriñ bi nañ bàyyi lépp ak sëriñ bi mu fasal leen mu fasal leen tasagal wasalaamaaleykum wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon waaye nekk na daal loxoom defal si li bëgg amiin te ñëpp ñaanal sëriñ mu yàgg fi te yëpp nekk ko jëwër jàmm te kenn bañ a mànk Amin. Amin. Yeah.